mbokk yi am nañ mbégte bu baax a baax a baax ak contentement bu rëy di nuyu képp koo xam ne yaa ngi suivre Zarak Vision euh, mbokk yi amate nañ mbégte bu baax ñëw fii nga xamante ne moom mooy Géejawaay amoo siis siis fi nag le grand champion ñu fekk ko fii nga xamante ne moom mooy ci ay xaritam ci boutique bi nga xam mooy Teranga Fon dëgg yàlla nara waxtaan ak moom ci lu bëree bari muy Mbaye Diop Safara yaakaar naa ni mu ngi mujj arène nationale ci digganteem ak Mbengue Mboro journée moo production su mu juumul daan ko fa jël bu rëy ndaan bi yaakaar naa ni bëri na ay combat yoo xam ne bëri na ko bëri naa ak Ouskara bëri ak boo yu bëree bëri daan leen muy champion tey ñu nar a waxtaan ak moom ci làmb waxtaan ak moom tamit ci actualité làmb jamono ji li nga xamante ne moom moo xew ci làmb ci waxtaan ci carrière am ak adversaire yi nga xamante ne si la jëm ndax bi mu bëree yàgg na boobu ba léegi mi ngi toog wax dëgg yàlla di xaar te boo yaa ngi fi di wane seen i preuve hmm, boo yaa ngi fi Ibo bu Kër Mbaye Fall maa ngi koy bége ñoom ñaar xanaa loolu nga xamante ni tey làmb boole na leen bëgg naa waxtaan ci ak moom hmm, waxtaan ci lépp loo xam ne lal na làmb dama koy bégg rek moom Mbaye Diop Safara tur nag xaw naa yéeme Safara ji dama koy bégg rek bàyyi ko mu nuyoog askanu Sénégal bi koy suivre ñu dugg ci waxtaan bi mbër maa lay bégg bu baax a baax a baax. ngi lay ziar di jox sa wàccuwaay ak sa caméraman di bëggee waa axlu Zarak Vision bi yëpp waaw di bëggee waa Teranga euh, fon xam nga ku ci mel ni Mamoun Papa. xam nga mafia bi ñom ceeb jogo fallu bi fi joge xam nga di santat yalla bu baax wa di julli si yonent bi di nuy sama papa ak sama yaay parce que man ñooñ la am te tax may sonu waaw di bëggee way gi yep tamit ak wa Pikine sama kër mam wa ñu mamun ci leneen wa mamun sama dom yaay la parce que suma amé combat damay gis xar tankim taksi ci taxaw tek ci ñu nyau, way lepp rafet musul ñaaw te dañuy ñaan yalla suñu borom Ah, teranga fon don bitig bu reey reey waaw ba geejaw ak yep gis sen bop wa parce que ndaw bu nekk ci yoon di liggey rek tek ko loxo day li gën parce que li mënon nak ci baña fekk mu def comme li jeune di def mi ngay katanam dem di linja wala muy jël alu jàmbur mais xalatul lool dafa xalat samp dara lo xamanteni kat ne ci mën jeriñu jeriñ ci ay waajuram ak ay mbokam ak ay frère waaw. bi nga yag na yakarna ni carrière bi combat jamono mang ci 9 combats 7 victoires 2 défaites yeah. 9 combats 7 victoires 2 défaites nga mujj arena nationale sa digënté ak Mbeng Mboro tay ban jàngal nga def ci combat bobu nga xamni jogé nga waaw man nak euh lambu suma ko djégué rek li ci suma karam lay xolé parce que dama nek ci ndaw dama nek ndaw nek ci yoon waaw di jëfé li lambu soxla moytu li lambu di téré parce que nit so xasse feus aduna xam la nga am ay soppé da fa wara a yok jom ngir say non bañ la ré parce que adna amul solo lepp ci ay netale rek lay mujjé motax tax def fi lu ñaaw jaruko ko. tay nga joggé ci combat bu mag daan jël bu rëy wax deug yalla digënté sa digënté ak meng Mboro meng Mboro di ndaanaan hmm, tay nga dégg ko ba daan ko ciol yu bari won ci combat boobu tay da nga gënon dundé comme rek man dama dund milieu suñu borom telma ci dimbali ma xamna du luy woy ma génn ci xam nga suivre sumay entraînement ak suma job sama papa ma ñaaral suma yaay ma ñaaral sama famille di ma bëggee taxi ma bañ di leen ñu may dégg ci lu ñàkk na moo tax ma dëggal sama bopp ci làmb tey man kenn xalaat lu ma yoon damaa ñëw ñafe jaayante suñu borom di ma suturaal may daan dëgg la nag daanu naa mais ba fi ma toll nit sumay ndam laa toog waaw may santaat yàlla bu wér wa di bëggee képp ko xamanteni so amé combat yaa ngi ciy sonn di ñaanal xam nga ñi jël sen moyen di def ma ngi awma lu di leen sant di leen gërëm wa di ñaaxaat wa akhlu lamb ñu war lamb tegat lamb loxo suñu lamb ji mi ngi bëgg yaqku té comme li Tyson wax rek suñu papa Magi jite jiite làmb ji doon ay nga laway nañu samal suñu lamb ji te bàyyi di sakato mbër yu ndaw yi bugguma woon wax nag mais dinaa wax parce que dafa am lu fi jóge lu weesul dara Macky Sall recevoir mbëri ñoom ñu tuddee ay VIP man gëwuma leen yee taxi it nekk ñu ñoo xamante ni man la sama nawloon naa leen parce que àdduna amul solo te Sénégal dañoo am habitude xam nga ku am ba pare la ñuy dimbali ki amul lañ koy seetaan muy gën a ñàkk suñu président Macky Sall nag benn kàddu laa koy dénk di ko xamal ne ah li mu yaakaar na loolu la du loolu te mbër yi nii dafa mel ni seen yaram du daw yéen laay waxal yéen ñu tuddee ay VIP di jiital tour Gris Bordeaux ci kaw moom mi président lutteur en activité gis nga mbër yu mag yi sunu borom jagleel na leen ñu am ba pare di fayee ko ay centaine de millions kon yoon la ñu war a mën a gëstu seen nii tout tànk seeni raq yi nekk ak ñoom ci écurie di sonn ndax ñoom bañ toogee pale palais mennum Gris Bordeaux moo fa wax boo xamante ne raisonnable na mais daf koo yàqaat parce que geste bi ñu def gi nga nit da ngay doyloo gëm yàlla wakkirlu ci say rak say tout tànk say jarbaat say doom doom yaay ñun dañoo sonn de ñun lu métti la ñuy dund dégg naa nag jox nañ leen xaalis jox leen ay terrain cinquante millions ak ay terrain mais guerre la nar a indi parce que terrain ñun mbër yu ndaw yi bu ñu xamee fan la dañ fa taxaw fas yee jongante ak ñoom jaay leen suñu bakkan parce que li nga li ñuy am ñoom am nañ ko ba pare dañoo war a mën a gestu mbër yu ndaw yi ñun sonn nañ trop ñun yaakaar ñu dul làmb te ñun eh leader en activité lañ wax bu ñu leen mayee may mayuñ leen ko ñoom kase pale liste moo fa dugg ñoom ba ñuy def retour yi def seen conférence de presse war nañ mën a woo ñu nekkoon ci liste bi parce que nekkul n'importe quel mbër lañ fa woo lutteur en activité lañ fa woo ak lu làmb lañ fa woo kon buñ tourné waatee jagleel mbër yi dara dañ koo war a mën a toog waxtaanee ko ñi nekkoon ci liste bi dugg pale yëpp ñu woo leen ne leen nii la demee ak nii parce que lépp ci waxtaan la mën a jeexee ah mais defuñu loolu dañoo yollee dem def seen conférence de presse tëdd ci leen président jox defoon nañ ko defaat nañ ko bii paa nag guerre la nar a indi rayante man Mbaye Diop Safara maa leen wax loolu yéen dinaa leen topp ba mu jeex man ak yéen duma leen may dërëm te mbëru mag bu ci dof-dof ma lay lekk bu leen wóoree muy seen jàmm gis nga ni da gëm yàlla ànd ak sa ngor sàmm sa ngor setal sa bopp taxaw fu wóor mais yéen setaloo leen seen bopp mbaraanu lëndëmal ngeen ñu muur mais dañ koy muuri janoog yéen parce que àdduna amul solo bu ngeen nekk ay ndaw da ngeen a dagg licence ñu dagg licence dix ngeen fay ñu fay dix mille VIP ci ay wax la nekk man gëwuma VIP ñun ñoo leen gën a ënn fuuf bu dee xasaw ngeen di jaay ñoo leen gën a xeeñ ñun ñooy bëre làmb yu métti yi ñun ñooy dóorante ñun ñooy bëre combat yu yàgg te tar yi jàppee wala ñu ay nit nag bu dee ay dof ngeen ñu jàppee ñun dinañ dinañ leen wan ne ñun ay nit jaay lañ. VIP yi fa demoon bokk na ci Balla Gaye numéro 2 te fii la dëkk. ak Lac de Guiers numéro 2 yaakaar naa ñoom ñaar ñëpp ay VIP lañ te fii lañ dëkk. ñooñu mun naa ne la benn instant gëmuñu tout tànk yi nekk géejawaay ñoom ñëpp parce que ay ndaw bu ngeen nekkee ñoom yoon la muy rafet man jël naa sama garde jël naa sama matuwaay te bañu ma ci dara nag sama bakkan bi bu ci naree des lii jaat la damay gëm na ci des parce que ñun tànqamu wuñu benn mbër doom yaay lu garaaw laa la yàq gis nga kullum mbëru géejawaay mbër yu mag yi fi ne mennum Alioune Seye 2 moo ci nit moo ciy champion moom ngay def ëppan press gis ko moom ngay dem stade gis ko mu taf sawet ak suñu père liiru Diane di la conseiller di la xelal lu naaj mais mbër yu mag yi nii non jaralatuñ ma ko de te dootuñu tax ma xeex dootuñu tax ma xuloo ku ci am sa bis nag yàlla la suñu borom defal ndam mais dootoo ma fa seen no guy gi moom boolewu ma ko ci parce que guy gi demul guy gi def na lu rafet guy gi sama combat bi dama koy bëggee au passage di bëggee Basirou dafa maa jàpp ci loxo parce que def ndimbal du ci génnee weccat jox nit bu la wóoree ne kii suma nit la te su ko booleeg sama tutànk bi mu taxawu ko def ko te yàlla tax bu ci seentu dara gis nga yi nga fi dégg ñu ñu ñu leen di jàpp ay grand fala deli ci ay affaire dal li njaaw ak yooyu dàqu ko te ñoo leen gën a xam li milieu di dawal ñun la milieu gën a reconnaître mais dawuñu loolu parce que dañoo juddu bokk ci ay famille yu baax xëy na nag ndaw boo ci tolloo danga koy jox bu weesoo wees na li jàll suñu ginnaaw romb nañ ko li suñu kanam la ñuy visé te dañ koo fas na jàmm wadd kon kon kon na nga jàpp ci da jàpp ci boo yi ni boo yi ni euh, état bi liggéeyul làmb maanaam mag Sall bi mu toogee ba léegi liggéeyul làmb da jàpp si ñooñu nga xamante ni tey ñooy xalaat lu mel noonu. bien sûr noonu la demee parce que Macky Sall douze douze ans la fi toog ba tey muy doog a jonoog ak lu làmb kon yoon la mu war a mu war a rafet ñu généraliser ko mbër yëpp gis seen bopp. lii muy def nii day yàqal boppam de parce que mbëri ñii kenn toppatu leen ñii dañoo xeewi te balaa nga koy xam ñu àgg ci jongante gi su boobaa ngay xam ne jeunesse bi ñun tout tànkee yi la ñuy topp ñun ñii raamandook ñoom di dox ak ñoom muy métti ñu koy dund di am suñuy téeméer di ko bokk di am suñuy 1000 francs di ko bokk jeunesse bi ñun lañuy ñuy topp mais toppuñu leen ñoom dañuy nax président rek te gis nga lii nii laneen la nar a indi Sénégal lu leer laa que. li ñëpp wax ay dëgg boo xoolee sorti ñi ko def ñëpp mbëri génn def sorti yëpp kontaanuñ parce que Covid bi dañ jox xaalis ñoom ñu tëdd si Macky Sall woowaat lutteurs en activité jox leen xaalis ñu tëdd ci jox leen ay terrain ñii gëmuñu yàlla ñii ku ci ne am nga foo dëgg di ci suturlewu dugal fa sa yaay ak sa papa ñun suñu papa ak suñu yaay dañuy luwee ba léegi ñun lu mit la ñuy dund te àdduna dañoo xam dañoo ràññee mënuñu dem di linjaa di nangoo alalu jàmbur wala ñuy kàmb ay kër jàmbur ñu dawuñu loolu ay deretu gor mooy daw suñu yaram mais nag dañuy guerre lu leer laa lay wax. geer ñoom ñoom ñëpp. VIP wala VIP yëpp dinañ dal seen kaw bu leen wóoree muy seen jàmm ñii bu ñu leen bàyyee ni day yomb de. ah dinañ créé dinañ benn association pour mbëri ndaw. déggoo lu ma la wax. ànd setal sa bopp taxaw fu wóor bi day dal seen kaw ñoom xam nañ loolu te luñ ñii ñii duñ dara. ñii milieu reconnaître leen ñii dawuñu milieu ñi dañoo sakkatoo ñu ñëw jiital leen génne leen ba seen yoon leer ñu gas kàmb sërëxal ñu ci fas yéene ñëw suul suul ku deewagul la mbër yu mag di dund ak mbër yu ndaw yi mais nag dinañ xam ne lu jiw a jeexul jugu fa sëgam yàlla suñu borom mi ñuy may weer ak suñu bakkan yi ñuy janoog ñoom dinañ xam ne tey kontaanuñ si ñoom démb kontaanuñ si ñoom ñoom leer na leen ñu ngi ñuy gis. taxawaayu Tapha Mbeur no ko gisee ci ci ci affaire yi ndax yaakaar naa depuis depuis lor mu ci wax deug na sa amna gaay yu koy wo diko menacer taxawayam tay ak ak nam tay no ko gisee. Tapha Mbeur la ñuy menacer rek te ñukoy wo ci diko menacer ay tapat lañ wax jee ne média ay bëri ku nekk ñu lay dekk micro ngay wax mais fi ku nekk xam nga ki la mën ku nekk xam nga ki la gëna capable te bo may ni sama xol neexul parce que ni ñu ñi sant ñu yalla ñi delo wuñ seni tout ku ñukal te def cee bëri ay mbër yoo xam ne ay complexe lañ ay daw peloton lañ mbëru jàmbur xewle faneen mbëru faneen xewle ñu jël seen i propre moyen di leen dimbali moo leen gënal mbëru géejawaay bii sonn ci ñoom ñu leen di gis seen i open press di ànd ak di entraîné ndoog ñoom mun leen yéene fukki junni loolu dafa ñaaw. am bien sûr ak moo fi bëri man yooyu noonu man nekkatuma ci de fii boo gëmee sa bopp rek suñu borom dimbali la ku sañoon doo bokk ci loxo biy def nii ci loxo biy def nii ngay yor yee parce que tàllal ñu may la boo dee gor bu ñu la ko defee ñaari yoon mun ngaa xaru wala nga rey sa bopp te li booy di dund ni yeneen bëri di ko dund mun nañ ko ëpp ñu gàllaaj gënu ñoo xam ne daw si taawon bi mais nit dafa am loo xam ne da koy jombale sa bopp boo amee ay waajur am ay nit yu baax da ngay viser lu baax di correct di sol lu set nit ñi jox la cër bi nga moom. parce que ñun dañoo xam ñun àdduna dañoo ràññee mënuñoo sàcc mënuñoo fen mënuñoo linjaa mënuñoo def lu umb àdduna bi moo tax ñu toog suivre làmb rayante ñun suñu nafsu ba suñu borom teg ñu ci niveau bii mu ñu teg mais mbër yu mag yi kontaanu ma si ñoom te suma deuxième phrase mooy Kona yow laay waxal Kona maa ngi dégg ñu naan bër la musuma seetaan combat kii tax na ñuy kii tax na ñuy yàq mbëri lu ne tax na mbër yi amatuñu gëdd Sénégal barki sëriñ Touba te bërëb bii nii naa fekk la kii nitu ayla la yow taalkatu dëkk nga kona te maa ngi ñaan ak làmb xaw ma ban promoteur moo may déglu bu dee mbër nga te danga woote na mbër nga tax ñuy yàq mbër yi di wax mbër yi du ñaaw na ñu tëgal suñu combat man gratuit soxlawu ma xaalis ma corriger la leeru barke leeru alxuraan bu ñu tëgalee combat mu dëgal boppam jël ko konaa mii may waxal dinaa ko corriger li métti yëpp dinaa leen ko fajal parce que ñun kilifa diine lañ am parce que bëre bi dama koo seetaan ay interview muy muy yàq suñu kilifa diine yi lu ne ñun gëmuñu pouvoir gëmuñu état ñun kilifa diine yi lañ gëm parce que ci ñoom lañ jokk texte tey bu Sénégal mel nii à cause de ñoom kon benn benn bërë bu nekk si site internet yi di xalab suñuy njiit suñuy yaakaar di teg seen i kaw ay tuuma yu ñaaw. kooku yoon la yoon teg ko loxo bu ko yoon tegul loxo nag ñun suñu dajeeg moom konaa dina ñu wax lan la yabee suñu kilifa yi ba leen di yàq lim leen di yàq Kona tax na kenn respecteetul mbër tax na mbë mbër bu ñu xoolee la bëtu kii waxkatu lu ñaaw la wala kii defkatu lu ñaaw la te genre nit yu mel noonu nag ah état dafa war a jug si ñoom parce que Kona mi ngi bëgg a yàq suñu town bi mi ngi yàq suñu kilifa diine yi lu ne mu ngi yàq suñu kilifa aada yi lu ne. te loolu noonu jaru ko parce que àdduna bu ñu ñun suñu ànd ak suñu dal di di di di julli di jaamu yàlla suñu borom suñu kilifa diine yi moo tax mais dafa mel dañ fee bëgg a jëlee loolu kii kenn xamul yéefar la kii kenn xamul formation la kii kenn xamul ban xeet la parce que yéefar sax am na ci lum jokk yéefar du wax lu ñaaw mais kii kenn xamul ban façon nit la bërëb yi nii te nag sawaay àdduna amul solo te lépp ci ay nettali lay juddu. te nit ku xalaat na dee am na noon man gëw ma ne ñii ñi ngi xalaat dee parce que chaque jour ñu romb la tënku nit yàpp ko ci jaag jiital la yóbbu almeere suuli nga la waay delloo si leen seen xel xool li rafet ngeen koy doxal li ñaaw ngeen bàyyi ko ginnaaw parce que lii dafay des àdduna day jeex te man la sum waay doomi ay sénégalais dafa bari ay faux ay faux dañuy affiché indien g kaboy te jaru ko doom yaay ñun lu métti la ñuy dund man dama par personnel lu métti laay dund man borom sareet laa woon damay dawal sareet mais dama àgg si ñuy teg ma ci kaw borom sareet yi loo xamante ne nii man doomu góor laa attanuma ko du ma ko dégg ma ma bàyyi fas di yar samay nag su ma amee combat du ma gis kenn chaque jour samay propre moyen laay def ci làmb man làmb ma maay dundal làmb xam nga di bëggee mbay jóob di bëggee Guy gi di bëggee eh, Basirou Ka ñooñ laa fi dese su may jàppale ba neen phrase mooy su may wax ci géej waaye autorité yi fii ne amul kenn ku ciy taxawu mbër kenn laa dégg mbëri di ko tudd muy Lat Diop li ko mag Sall dégg mi ngi koy sàmm sàmm lee Lat Diop borom la naas mag Sall su amoon ñaar ñu mel ni moom géejawaay géejawaay changé na te lim fi bëgg da koy am di la bëggee père di la wax mention spéciale di la wax yàqoo ko benn yoon defalu nag mais dama gis su may nit yu mu jël utal leen ay place ñu fay liggéey ma xam ne kii ku baax la di la wax nag père dundal bul am dara looy xalaat wala looy tiit parce que dund su amee njëriñ yàgg fi day li gën dama lay ñaanal nga yàgg fi wéer lool ndax sa dund am na maanaa Lat Diop mention spéciale li la mag Sall dénk yàqoo ko benn yoon mais président nag moom luñ ko dénk mi ngi koy yàq parce que mbëri mu woo nii nii nii nii ak lim leen defal ñun ndaw yi ñun ñuy seetaan ñuy dund lu métti ah war nañ cee jugaana te xam na nag bëri nii yàq nañ ko nar a yàqal si de parce que ñun ndaw yi topp ñun ndaw yi ñuy topp buñ naree génn ñun bu ñu leen téewee dañuy toog ndax suñuy kàddu la ñuy déglu parce que ñooy tëddandoo ñooy yeewoondoo ñooy toogandoo ci garage bi dawal sareet yi suñu amee suñu 1000 francs ñoo koy bokk suñu amee suñu téeméer ñoo koy bokk bëgg naa ñu bàyyiwaat xel loolu bu baax a baax sànq maa ngi dégg sa biir kàddu yaakaar naa bi ñu commencé la nga ni euh, maanaam yàgg ngaa dund milieu tey loo ñu mën a expliquer ci loo xam ne dund nga ko ci milieu bi loo xam ne tey booy toog di ko rëcc. li ma si dund ko rëcc mooy dama nekkoon ndaw di demee fukk jeunesse man maaro humile laa màggee teeru baay soogi maaro humile bi ma fay nekk comme booy bi toog laa toll kër Ablaye Diop Matar lañ doon añee fa lañ doon ñëw ñu jox ñu coob ñu coob. xam nga ci maro bi lañuy yendo ci maro bi lañuy fanan mais bima ma ba Lubah li jëmul kër dóor yi ma sama waa gaale doon lu bax lañ ma bëggal té man gëm na né fék li suñu borom di maye jéxul man damay am parce que dama mësa a déglu ñu né kat ndaw bi bàyyi mu ëpp lu mu dóor ci mo ci raw te man sam papa dafa ma doon yar yar bu metti motax ragaluma duma ma tiit ragal duma daw duma teg si en plus damay kontaan ci som papa yar bi mu ñu ra yar ñu ay njabootam muy julli jox mag cër xam nga ki kilifa nga jox ko cër kilifa ba ci ki nga xam ne yow yaa ko mag mu féete laa sax da nga jox cër bi mu moom parce que àdduna amul solo te lépp ci ay nettali lay mujjee. Eh. nee nga Mboro nga mujjee bëri arène national yaakaar naa ne journée moo production la woon boobu ba léegi amagu combat te boo yaa ngi fi. dem amna naa benn bër bu ma jële woon doon lako proposer sax yakana ni amna promoteur bu la woon doon lako proposer mu ibo bu keur mbay Fall bari na sax ay boy yu fi nek ay ñang balo Aliou Fat Fat boy yo yakana ni yakana ni bu ñoo <laughs> yakana ñoo say adversaire no man duma sen morom te tolotuma lamb fu may tourner waté di bëré sumay morom parce que ba woné sumay preuve mari fi dëgër bop yop ma len daan té nak ndap ndap kenn du ko say morom man suma suma mbeur yu magi ni nek nekk kanam man meunat meunatul may sens damay baye lamb jéem tukki dem tok Europe comme niko mbeuri di defé mbeuri fi nek bëri na ci citatu da boy booy dafa may wadjal xam nga mais ñom ñuma wara may sens xam nañ ko nañ dëggal seen bop ñoo ñu beuri te baye daw bi parce que lamb day jeex yàggatul yee non lay démé big naa lan ngay tagato lan ngay tagato tay ci émission bi. wa di wat ci cadeau yi budé ñaawna na ñu xamna suñu ñaka mat la. waaw lépp lu ci rafet ñu xam ne dañoo bëgg lu jëmale làmb kanam rek moo tax ñu waxee foofu xam nga di sant kull kuy yeewoo géejawaay kull kuy yeewoo géejawaay maa ngi lay bëggee garage saret xam nga di bëggee kenn ci man nag tafaaja borom Angleterre di bëggee lëz silla la ela silla xam nga di bëggee Pape Kassé borom Touba Kër Ñang di dem diaspora ba di bëggee Zé Abdou njaay sama benn copain bu nekk Italie ak yaayam maa leen di bëggee di leen ziar leen jox seen wàccuwaay di bëggee Omar borom Gambi bu ma jógee démb démb Gambi laa jógee maa ngi bëggee Omar borom Tànje di bëggee Pa Modou suma grand bi nekk foofu xam nga di bëggee waat waa Gambi yëpp di bëggee waat kullu kuy yeewoo géejawaay di la jox loxo di la masawu xam nga waaw di leen wax nañ ñu ñaanal rek parce que yoonu ndaw du gaaw te làmb dafa métti te ñun amuñ lu dul làmb noonu la demee doom aja kontaan nañ ci moom bu baax a baax a baax kooku moo nekkoon bay Diop Safara ñi ngi bégge bu baax a baax joo sunu caméraman bi wax dëgg yàlla ni waxtaan solo lool am dëgg yàlla ñu ngi koy bégge bu baax a baax a baax di bégge waa Géejawaay gi ah, sant ñëpp mbokk yi di bégge bu baax Serigne Diour ñu ngi koy bégge bu baax a baax a baax kooku sunu waay la wax dëgg yàlla ñoo ko bëggal suñu bopp Serigne Diour ñu ngi lay bégge di bégge Bada borom États-Unis ah, Serigne Makhtar Niass sama Serigne maa ngi lay bégge bu baax di la jox sa wàccuwaay bu baax di la ziar nag di bëgg kawla gi yëpp ak wa parcel mbokk yi dañu am de météo bu baax tay nak yaakaar ni Teranga yaakaar naa Teranga fon lañ ñëw tay Teranga fon di boutique bu mag ku bëgg ay téléphone bu baax rek bo fa ñëwé gaay jox la inshallah mbokk yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp def